tëj nañ ko lu toll ci fukki ati kaso ak juróom paa bi wi ñu ko laaje ni ki démb ci chambre criminelle nee doomam ji nga xam ne rey na ko dafa ñëwoon doon ko saaga loolee moo tax paa bi bëgg ko jubbanti far nag ndogal daal di say am journal bi nee na am na ñenn ñuy wax ne paa wee maanaam àndul ak xelam yéen a kaay gi di la quotidien xëy duñu xibaar naa ñu nawetu ren bi baaxul ndax gerte gi nga xam ne maanaam moo am dara baaxul ci gerte gi ñi nga xam ne ñooy exportateur chinois yi jamono ji sax dañoo daw li nga xam ne mooy njënd ak gerte gi ndax chinois yi gis nañ ne gerte gi baaxul état bu Sénégal daal nay teggi li nga xam ne mooy taxe yi waaye nag téewul ba tey exportateurs yi ñoom gedd nañu gerte gi yéen a kaay gi ne na taxe yi nga xam ne état bu Sénégal tegoon na ko niki daaw ak exportateurs yi journal bi nee na lu toll ci neuf milliards duggoon na ci gafaka kër réewum Sénégal ren ji nag loolee lépp la état bu Sénégal teggi waaye nag amul lenn loo xam ne dina ko si soppi ndax li am ba des mooy nawetub ren bi moo baaxul gerte gi moo baaxula chinois yi daal nañu koy gedd yéen a kaay gi di laas xëy dañu xibaar naa ñu ñi nga xam ne ñooy dawalkatu Jakarta yi jamono jii mer nañ ba maara day taali ndax gouverneur bu Ndakaaru ndakaaru moo leen wax na leen wuru leen a daw ci diiwaanu ndakaaru moo tax ni ki démb jakartamaan yi doon nañu wane seen xare ci diiwaanu Colobane ay grenade lacrymogène la ñu leen sànne yéenekaay gi nee na am na ñenn ñoo xam ne jot nañ leen a teg loxo ay yéenekaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu proposition de loi bi nga xam ne association sàmm jikko yóbbu woon ko assemblée nationale assemblée nationale daat koy rejeté maanaam daat nañu sa poubelle ba yéenekaay gi nee na waa assemblée nationale ni ki démb nee nañu njiitu réew mi di président Macky wax na ci lu mel ni midi te code pénal bi maanaam daf koy daan daan yu métte métte loolee moo tax assemblée nationale daal di koy rejeté yéen a kaay gii di la témoin xëy duñu xibaar naan ñu bureau assemblée nationale daan nay lànk kandaare ne du jël lii nga xam ne mooy proposition de loi bi ndax nag nee na ñu bala naam ne fa yéen a kaay gii di les échos association sàmm jikko yi ñoom nag mer ba mara détaillé ni moom la assemblée nationale def loolee ne na ñu réunion fukki membre nekkoon mennum député Cheikh Bara Dolly Mbacké bu PDS moo fa nekkoon doon tuba yu la association ànd sàmm jikko yi yéen kay gi du Source A nee na maa leen di wax ni mu demee bureau assemblée nationale bi nga xam ne moom la ñu teg ngir nag proposition de loi boobee maanaam dix-neuf député la waaye nag ni ki démb ca réunion ba fukki député rek maanaam ñoo fa teewoon yéen kay gi di réew mi ko di cee xëy dañu xibaaral naan ñu mouvement des entreprises du Sénégal di MEDES te président Mbagnick Diop jiite ko ni ki démb def nañu ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di def at mu jot maanaam bu at mi jeexee daal di nag présenté li nga xam ne mooy seen i vœux waaye nag daan nañu dellu si waat ci lauréat prix innovation numérique daan nañ koy jox ki nga xam ne moo ko gagné di Cheikh Thiam lu toll ci benn million la ñu jox ni ab sek keneen ki jël deuxième di Lamine Gueye kookee cinq cent mille la ñu ko jox yéen kaay gi nee na mbédees daan nañu dellu si waat ci atum 2021 bi ak nag grands événements yi nga xam ne daan nañu ko fi organise yéen kaay gi nee na forum du premier emploi conférence annuelle des femmes chefs d'entreprise des entreprises African Leadership Award ci njeexantalu année bi quatrième édition Afritech yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu élection locale yi bëri na ay gox yoo xam ne enjeu yi bëri na fa fu ci mel ni Ndakaaru Pikine Guédiawaye Thiès ak Ziguinchor ak ba ca Touba yéen kaay gi di la Soleil xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci train express régional bi jamono ji gars yi ñoo ngi koy jël good fine ndax nag si juróom-ñetti fan yi nga xamante ni gratuite la lu toll ci téeméeri junni ci ay nit yoo xam ne war nañu ci train express régional bi yéen a kaay gi de sat nee na jamono ji ci Coupe d'Afrique bi